salaamaaleykum mbokki àdduna salaamaaleykum mbokki Sénégal monde entier ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp nekk seen site bu mag bi nga xam te moo di 28 pro tey ñu ñëw ci nga xam te ni moo di festival bi nga xam te ni cinquième édition festival bi nga xam te ni moo di actuel culturel di Bawol nekk fii ci Mbàkke def festival bu mag seen cinquième nekk tey euh, mu nekk li nga xam te ni mooy le 28 29 30 ba le 31 tey nag la dîner de gala bi euh, gars yi tey ndaanaan yu nekk yëpp ngi fi artistes yëpp a ngi fii spectacle yi jàll na tey ñu ci dîner de gala yëpp ngi fii monde entier yëpp a ngi fi képp fu artiste nekk Sénégal yaa ngi ci biir gars yi nañu ma xaar tuuti ma dugg ci biir daal di gisanteeg artistes yi daal di waxanteeg ñoom lu doy waar gars yi waa 28 pro déglu leen ma da ngeen topp ma incha allah gars yi ah. beneen naanaan ki nga xamante moo di ñëpp xam ko borom appel yu mag yi nga xamante ni artiste comédien bu mag la tey Thioune yaa ngi ñëw ci festival cinquième édition nga xamante moo di Fesar euh, acteur culturel du Bawol nga ñëw ci euh, Thioune tey nan nga dundee festival bi tey ak nga xamante ni tey daanaka yow da ngaa dañ laa fekk si ndax yow fii nga dëkk waaw sant yàlla baax a baax di nuyu waa si internet bi di nuyu baax di nuyu suñu papa Ndongo Fall xam nga dañoo doon ay doom Bawol bokk ci Bawol loolu moo tax tey festival bu amee rek yi bàyyi suñu yëpp ñëw ci waaw waaw gars yi Thioune jël mag bi léegi dañoo gis ne euh, tey appel macha allah dem gis nañ li nga presse fee gars yi kontaan nañu loolu baax a baax sa diggante ak Ndongo Fall lan waaw sama diggante ak appel yi moom mooy li naan ñaan gu nangu moo sonal borom ndax dafa doon loo xamante ni musu am muy comédie appel euh, kenn musu koo xalaat man maa ñëw indi ko fi loolu moo tax tey fu ma dem rek bu ma ko yëgale rek affaire day yëg ñi ngi jàkkoon nga xam te ni a bale taxaw bale taxaw ñëpp ko xam euh, artiste bu mag bi a tey festival euh, euh, di Bawol di wax ne nanu nga nanu nga ko tuddee ak nan nga fa ñëwee ak yaakaar naa ne gars yi ñu ngi lay gis waaw waaw noonu la fa demee nag maa ngi soog a ñëw festival Bawol mais naaj na daal naaj na torop wax dëgg yàlla ndax yaakaar naa ne bu boobaa Bawol wootee ñëpp war a ñëw ndax ku si mel suñu papa Père Ndongo Fall yaakaar naa bu wootee kooku monument la si théâtre yaakaar naa waaw référence la tamit yaakaar naa ne Père Ndongo bu wootee ñëpp war a ñëw ndax yaakaar naa ne tey la tey la jour 31 décembre yaa euh, kenn ku nekk yor nga say famille yor nga say doom yor nga si lépp mais nga bàyyi si lépp tey jii nga ñëw fekk si per Ndonga Fall fii si Mbacke xam nga loolu wax dëgg yàlla lu ñu neex la lu ñu neex la wax dëgg yàlla man moom bëgg naa trop man moom trop wax dëgg yàlla am naa yéene bi am naa danañ ñaan ñi koy fekkee chaque année ñu koy fekkee waaw ndax pen Ndongo Fall ko. ah yéen a ngi ci 28 pro donc ki nga xamante ni moo di ñëpp xam nañ ko tiktigóor bu mag bi ah, tey ñëw ci festival bi nga xamante ni tey mooy cinquième édition Actuel Culturel di Bawal ñu gis ko ci ñu am ci fierté bu baax a baax ñu kontaan ci bu baax a baax a baax a baax ah ñu ngi laaj nan nga d'abord maa ngi leen nuyu yéen waa 28 euh, pro di nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa festival bi aussi waaw dama ñëw comme tous les artisans comme ni gars yi ñëwee rek ah yëg festival bi ñu invité ma ma waaw assisté comme gars yëpp chaque man chaque année damay ñëw. chaque année day yaakaar naa ni gis ngeen festival bi ni mu mel. mbooloo bari na trop. xam-xam loolu a baax a baax a baax ah ñun ni ñuy amoon nañu laajal tànku rajo ak yéen ak acteur culturel ba wala waaw convention war a suñu diggante rek ak bëggante booloo nekk benn yëg-yëg parce que ñun dañoo déplacé wu euh, Dakar ba Touba a jóge yeneen dëkk ñëw ba fii donc loolu day wane ne artistes comédiens yi booloo nañ ñëpp benn lañ quoi ku xewle sama morom day dem teew te rafetlu quoi ñu koy rafetlu chaque année tey ñu ñëw ñun kon ñu ngi gis lu muy gën a rafet di gën a rafet chaque année ñu ñëwul woon dinañ ñëwaat mbooloo bi gën a yokk te ne mbooloo mooy doole quoi vraiment lu nice la. kontaan nañu bu baax a baax mais gars yi nee nañ foo tolaat foo nekkaat ci vidéo maa ngi ci man bu ma bàyyi nee leen man du ma ne maa fi mën mais man la gars bëgg te tas damay làbbali kon ku ma bëgg a def faaw nga liggéey. a baax fan fan lay kar ñi nga xam bëggu fan lañ lay nañ ma kar sama seen TikTok Cheikh Leroy mais aussi mën nañ ma kar ci 28 pro parce que am na lu ñuy préparé incha allah. incha ngi jàkkaarloog benn naanaan boo xamante ni mooy doomu Mbacke kenn euh, la wax ne doomu Mbacke giri nanu nga dundee festival bi ak kat yi nga xamante ni moom ngeen am nan ngeen leen dalalee ak ak ak bi nga xam ne moom la champion mag bi nga doon nan nga koy dundee. waaw mais di bëggee suñu père di ziar waa bi yëpp di wax ne ñun si lañ bokk ay mbër lañ nekk ci dëkk bi mais lépp lu ñuy def yow da ngay ñëw Ama day ñëw suñ ndongo suñ papa la suñ nijaay daf ñoo yàgg teete moo waral ñu boole si suñ bopp te mbir mi bi mu amee tamit da ngeen jox cër bu mag jël ouverture bi tànn biir bi ñëw defee ko sama koñ jox ko fan si club doomu Mbacke ba pare ma lubati ko bokk si biir compagnie bi moo waral tey festival bi ku dund loo man dama naan damaa yeex a bokk réccu laay def parce que li si aar amul fenn mbër laa mais tey solidarité qualité bi ma gis si aar ak bëggante gi ma gis si aar ak ni ñuy dundee amul fenn amul ci benn monde moo tax man dama ni damaa yeexam dugub parce que bokk ci boole ko festival bi nag ñëw neex macha allah bi xamante bi waa Dagana waa Waalo waa Paal waa Dakar ñëpp ñu doog tey bokk baay tey bu doon affaire mbër ku ne sa morom champion ko koy jaay taxaw na le mais affaire art ñëpp ku ne da ngay def doomu nday mu doon lu rafet déwén dinañ xam ne ren du bokk bu mag bi dëgg la bu déwénee ndongo du ci wéet te yéen du ngeen ci wéet li ma ci jàpp ren nu ko raw laay ñëwee te bu ma ñëwee dinañ xam ne ñëw naa barke sëñ Bamba te naa sama loxo dootuma rek den na ñi nga xamante ni ñaari ndaara ñi nga xamante ni suñuy papa lañ suñuy kilifa lañ suñuy lépp lañ ñu ñëw jëy ci bés bi nga xam ne mooy cinquième édition euh, actuel Gueule Tapée Baol festival di am contentement bu baax a baax di wax ne ñu ngi ñu ngi laaj nanu nanu ngeen ñëwee mbax mbaa. merci Sow di leen nuyu di wax ni euh, Wethio Théâtre From di ànd ak mbégte ak kontante fii nu ñëw tey muy Mbàkke Bawal ci festival bi euh, ma tudd Babacar di trésorier Wethio Théâtre en même temps di acteur di am mbégte loolu nag ci tertu gi ngeen ñu tertu dalal gi ngeen dalal ak yëg gi ngeen am ci ñun ba ànd koog ñun wax dëgg yàlla dañuy ñaan rek mu dem ba ngeen am seen bërëbu bopp boo xam ni yéen ko moomal seen bopp yéen artiste Mbàkke ndaxte lii fierté la lii lu sedd xol la te yàlla na ko yàlla jëmmal la doomu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul suñu bàppal moom tamit ñëw ci eh, bés bi boo xam ne ñëpp njaboot a teg ngeen bàyyi ko ñëw ah, man maa ngi tudd Pape Seydi dañu toog doon ko waxtaanee acteur ci ci Wécco Théâtre Forum ay ndaw ndongo moom moo ñu woon ndax ñu jàppee ko noonu waaye suñu kër bàyyi suñu lépp na yàlla nekk ndog moom fii def nañ ko daaw def nañ ko rent déwén ci kàttan yàlla suñu borom buñ fi yàlla bàyyee quelque mën ko dinañ moom quoi nit ki moom ni nga ni nga bindoo rek noonu la je veux pas monopoliser ñu bàyyi la ko daal ñu accueillir dëgg yàlla tëggoon noo xamante ne euh, dëgg dëgg dëgg dëgg nit ku baax la ku yaatu la Cheikh Sylla na yàlla lépp li nga xamante ne nit euh, war na ko defal nit euh, sant ci waa Bawol yëpp sant ci ci ci tur Wecco santaale ci moom donc ak euh, euh, staff mu àndal ak équipe am bi yëpp wax dëgg yàlla macha yàlla yàlla dooleel di wax ne nga xam ñoom ñoo nekk fii nii ci Bawol ñu teg seen tànk ci def ko li nga xamante ne dañ ko war a war a bokk ci agenda Xaadimu Rasuul nga pour man foofu la Cheikh national la daal ñu ngi ci 28 pro site bu mag ñu ngi jàkkaarloo nga xam ne tey moo di sunu yaay sunu xarit sunu lépp vous êtes toutes belles macha allah. Mhm. fu ne Ndeye Mané ne Ndongo. les hommes aussi vous êtes très beaux. nga ñëw ci bésam yaakaar naa ne bii mooy cinquième édition bi yàgg nga fee ñëw nan nga dundee festival bi. xanaa konti rek dëgg yàlla parce que Ndongo doon na ci ñun koo xamante ni buñ koy fekk day ànd ak mbégte te cinquième édition bi des na yeneen édition parce que yàlla xool rek lay fay kontaan daal lañ lañ dund saa su ne heure bu ñu ñëwee ba ba dem ñu ciy dund kontaan goo xam ne mënuñu ko wax sant yàlla rek. waaw Ndeye Mané ku ne Ndeye Mané la ndar. dëgg nga am bés bu rëy. yàlla eh, bàyyi leen wax ndax yaa ngi waaj bés bi. waa ci waaw ñu koy waaj bu baax mooy festival jigéen ak sabar muy deuxième édition. artistes yi ñu koy def le 7 8 janvier di ci woo ñëpp nag xam naa waa Mbacke ñoo ko moom. incha allah incha allah incha allah dinaa la xaar nañu bu baax a baax jërëjëf. waa Jiri ana projet waa ñu ci en tout cas ñu ci quoi. def lu ñu mën affaire léegi dafa neex parce que boo dee xool bu njëkkoon ku ci nekk da ngaa ber sa yoonu bopp waaye léegi ñëpp nañu mbooloo léegi liggéeyu baa ji da nga ci gis baylaat da nga ci gis Cheikh nangam nangam nangam moo tax instant bii boobu dafa gën a am doole quoi macha allah. ni ngeen di ngeen dundee dîner de bi tey festival bi nga xamante ni tey Mbacké def nañ ko jour 31 décembre. waaw dañuy wax asalaamaaleykum mbooloo mi ba pare di wax ne jërëjëfat Serigne Saliou di wax ne festival bi ni ko gisee kontaan lañ ci am ndax parce que lu mel nii dañ koy soxla ci Mbacke Bawol bi comme ñun ñëpp ay doomu Mbacke Bawol la te li ñuy def lu baax la te képp ku fi na lool boo amee ay suuf yu mel nii luy def comme am seen ko war di di joxe liñ ci am lépp macha allah daal la ñuy wax. ñu ngi toog nga xamante ni moo di Masser euh, nekk étoile brillante nekk daanaan nekk artiste comédien bu mag a mag a mag euh, Baye Mass nan nga dundee festival. waaye nice festival moom comme li ma waxoon au début rek dama dama dama euh, maam c'est-à-dire dama rëcc lu ma yéexee ñëw ko ak liggéey bi nag vraiment dëgg yàlla gis naa initiative bi macha allah rafet na lool. dëgg yàlla di ko féliciter di wax ne mbir mi suñu mbir lañu ñëpp parce que mbir baba papa donc euh, tardement bi yooyu j'espère bien que ni grand donc dinañ ko comprendre ndax dañoo ne ci liggéey xëy na liggéey jaamu ci lañ nekk wala xëy na mais dëgg yàlla mbir mi suñu mbir la ñoo ci war a jiitu waaw mais en tout cas maa ngi koy saluer di ko di ko bu baax di ñaan yàlla nag mu nekk lu fii sax parce que tamit initiative boo xam ni euh, day dundal ba aaru Bawol dëgg yàlla waaw vraiment c'est à na lu ma de maa ngi dégg damaa dégg na gars yi nee na da ngaa aar bi de ah maa ngi di gars di ko wax ndax gis nañu laa gis ci semaine bi gis nañu laa gis ci télé bi loolu moo xew lool lool loolu moom loolu moom da nga wax nii pour mbalak rek mais ah, aar moom euh, duñ ko mës a bàyyi parce que ni ko gars yi di waxee c'est dans le sang quoi mi ngi si suñu deret waaw man nu ma ko d'ailleurs ngi waajal benn affaire quoi. waaw waaw loolu du ma ko wax sax loolu voilà yow xam nga dara quoi yaa ngi biir voilà yaa ngi ci biir non mais bàyyi aar moom loolu moom tuub ko ba keroog ñuy sàngoo suuf rek. ñu ngi toog nga mooy naaran mag bi njàngu de ñëpp xam ko ah nga xamante ni tey bu jiyee mu neex bu jiyee film mu neex bu neex. ah donc nan nga dundee festival waa doom yaay di kontaan rek di leen bëggee waa 28 Pro di wax gars yi abonné leen ci seen bii nii man balaa ma wax dara dama wax gars yi nañ abonné fii 28 Pro fii la lépp nekk waaw di kontaan nag di la wax na la festival bi moom gars yi dañ naan wàcc na képp koy defati festival da ngay ñëw ba Mbàkke nga laajte loolu moom yàllaa ko dogal waaw ok jànku ñi ngi toogee yow ma ngi dégg scène bi yaa ngi koy toj yaa ngi toj scène bi yaa ñoom ay projet di liggéey ak ñoom nan nga liggéey ak waa 28 euh, Pro nan ngeen commencé engagement bi liggéey bi te maa ngi seen yaa ngi yaa ngi fay def lu doy waar. waaw gis nga waaw waaw gisoo damay wax gars yi ah, label yëpp dañoo war a dañoo war a xool ci 28 pro waaw ñi nga xamante ne ay label la ñu nekk fii maison de production yi dañoo war a xool ci 28 pro ndax ñu ngi jàppale jeune talent yi. waaw parce lii jàppale jeune talent la ñu ngi liggéey liggéey bu am solo may may remercier Omar Sarr ak Tons Ablaye Gueye mi moo dox lépp mu ngi cool boobu ba léegi dara tey ñu dajewaat beneen daanaan rappeur bu mag bi muy MC Abbas nekk jag bi daaru ànd ak jigéenam bu ñaaw bi sama doom ji muy get mi ah Abbas tey festival bi nan ngeen ko ak tey yaakaar naa ne édition yëpp joué ngeen ci nan ngeen ak ban satisfaction ngeen yëg ci festival bi nan ngeen ko waaw maa ngi siyaar waa di bëgg di am kontaan bu baax ci festival bi di nuyu suñu grand Ndongo Fall di wax ne ñun am nañ mbégte bu baax baax ndax ay doomi Mbàkke lañ te doomu Mbacke su xewle doomu Mbacke yow war a teew waxu dëgg yàlla ñun gis nañ suñu bopp bu baax a baax di wax nañ ko teewe ay déwéni déwén mu gën a neex waa jag bi daaru ñoo ngi si biir ak waa Ndongo Fall kooku mooy Abbas MC Abbas jën mi ñoo a wax ne fii tey day neex fii man tey maa koy dëpp fii tey du yomb dundee programme bi ak festival bi nga xam te ñëw na gis nga région yëpp nañu nga nga ci dundee ak ak nan di wax kat dañuy jaajëfal ndongo ak euh, équipe nga xamante ni yoo xamante ni donc dañ koy àndandoo ak moom di ko déggal parce que dafa jafe aussi mag ànd ak ay xale ñu déggal ko aussi dama si teg sama bët. donc bu mën a réussir bu mel nii ba nekk ci cinquième édition bi kon yéen ñëpp la ñuy jaajëfal di leen remercier di wax ne yombul mais lii dafa nekk loo xam ne fierté bawal bawal yëpp la waxuma Mbàkke rek mais képp ki bawal bawal rek sa fierté la parce que Sénégal yëpp ñu ngi fi yu mag yi ñu gis ci bi yëpp ñu ngi fi kon nekk na loo xam ne nii fierté la quoi. waaw euh, président gis nañu festival bi région yëpp xaaj bi yëpp ñu ngi fi te nañu ne lii budget la. gars yi dégg naa ci wéwu bay ñu ne ah, taxawu nga leen taxawu taxawu fépp président fépp daal waaw damaa dégg nag dégg naa daal est-ce que ne sax yaa def lépp. déedéet defuma lépp <laughs> moo def lépp parce que nit ki bu amee xalaatam rek donc mën na am bañ a am doole ay poos mais kooku moo def lépp mais Sénégal moom ñuy joxe rek la ñuy wax ñiy xalaat nag ñoo ëpp solo juróom te yéen artistes da ngeen xalaat kon donc. ndongo moo dem la man def mos dara. tey ñu ngi doon wax benn daanaka bi nga xamante ni mooy Lamine Diabaye seen mag bi nga xam ne moo di festival Mboro bi nga xam ne tey mooy cinquième édition bi euh, Fesar euh, euh, dañoo ba a xam Jobaay sa diggante ak Ndongo Fall lan la. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi may seetaan di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci diine de gala bi ak képp koo xam ne ñëw nga festival bi en maa ngi nuyu ñëpp waaw Ndongo nag suñu digganteeg moom dafa yàgg. tay te olof Njaay ne lu yàgg festival bi li nga xam ne waajal nan ko nit ñaa ngi fi loolu nga nag mënuñu koo fay ndax lu yàgg dëgg la yow bàyyi laa ñu doon bu baax doon sama doomu day barki dem rek nga génnuñ néeg waaw ngeen war a waaj kon donc ñi ngi sant ñëpp waaw quel que soit alpha ñi ngi sant ñëpp daal ndax lii mooy Mbàkke lii mooy Mbàkke jamaay dañu jàll jàll moo di Pablo naan Mbàkke ay loo ah ñi ngi laaj loo tey nga xamante ni tey moo di festival bi cinquième édition festival agriculture Bawol nan nga ko dundee ak gan yi nga xam ne ñoo leen fekk si nan ngeen koy doxalee dundee ak ñoom. waaw maa ngi si àjëf ah. di kontaan baax a baax di wane franchement parler kontaan nañu quoi ndax message bi neex na macha allah ndax woote nañ wuusi nañu te lépp mbàcce nañ quoi daanaka wuute nañ yaay bi nga xamante ni moo di ñëpp xam nañ ko ci tale yi Euh, muy mère Thiaba euh, ñu sopp ko bëgg ko lool nekk suñu yaay yi nga xam te ni mooy ci aar bi euh, ñu ngi jàkkaarloo moom tey mu ñëw ci festival cinquième édition acteur culturel di Bawal ñu ngi jàmmaarloo moom di ko laaj yaay booy nan nga gisee festival bi ndax yaakaar naa Mbacke ñu ngi lay doog a gis ci festival bi naan mooy acteur culturel di Bawal ñu am ci contentement bu baax a baax yaay booy nan nga di waaw festival bi damay sant yàlla ba pare julli si yonent bi moom ma may ma fekk festival lu Mbàkke ndax yàlla mu ko soog a dogal tey pour ma assister ko waaw ah, mu nekk loo xam ne it rëccu ma ko ndax ba ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla gis naa ne euh, festival bi jaar na yoon ah gaa yaa ngi tëdd gaa yaa ngi lekk gaa yaa ngi naan te gis naa fi it spectacle yu mucc ayib te loolu si soxla woon yaay booy tey eh, sa présente fi nga xamante ni tey moo di Mbàkke ñu kontaan ci loolu loolu baax a baax parce que da dox sax ci mbéy dégg ñu naan ay merce ba ñëw ba fi am ci contentement bu baax a baax a baax a baax loolu nan nga ko dundee ak ndongo bi nga xamante ni tey bi mu la ci festival am dafa kontaan loolu loolu wax dëgg yàlla nan nga nan nga nan nga nan nan nga ko yéegee ak damay jëkk si ndongo parce ndongo dañu bokk déjà aar bi Euh, muy le théâtre après ñu bokkaat li nga xam ne mooy arcos euh, comme moom mu ngi mbàkkee yor arcos yor ay xale di leen ci théâtre man ma nekk tënge nekk la présidente de l'arcos département de Rufisque yor ay artistes di leen ngoon si xeyle woo ma ci bésam dama ciy bég ndax ndongo nag wax dëgg yàlla max moom dañuy séq jaam di wootante téléphone di sottante ay xalaat moo tax bi bés bi ñëwee damaa bàyyi sama lépp 31 décembre am na feneen fu ma waroon fekk macha allah mais dama ne naa toog waaw naa toog toogal ko ba mu jeex ma soog a ñibbi waaw xale yi nag xam nga bu lay gis si télé mosuñu la gis nii suñu la gisee foog noonu lañ lay def te xale ëllëg mooy doon mag euh, te ki la bëgg wax dëgg yàlla mënoo ko fay mënu ma ko fay. muy mag ñi muy ndaw ñi ñëpp laa yemaale man bokkuma si at si xam ne dañ leen di woo ñuy bañ duñu wuyu wala di jaay maanaa non parce que man nit kese laa bil kese laa li ma am li ma def nii lu ma jàng man ko yàlla teg si loxoom ngoon man ëppale ma kenn lenn ngoon su ma xale yi di wax met taba di ma kii damay taxaw fa ma dëkk feneen ak feneen a yem damay taxaw waxtaan ak ñoom kafanteeg ñoom ñu dem ma dem parce que àddina jeex na ba noppi boo fi nekkee di jaay mbagg mu rëy wala jaay la yaay perte yaay perte te nit booy liggéey dara ba mu baax foog li ñu bëgg la lool la waa. ñu ngi jàkkaarloo ki nga xamante ni tey moo di président nga xam ne mooy acteur di Bawal. waaw gàncax gi di bawal ñi ngi jàkkaarloog moom euh, président ñi ngi lay nuyu la jaar bu baax a baax di la wax ne festival bi naka la ndax sonnu leen nu ngeen ko waajee ak gan yi nu nga leen dalal jërëjëf Baye Laat ñi ngi lay ziar bu baax a baax di wax ne waaw festival ku wax festival boo bëggee mu jaar yoon il faut nga sonn waaye yàlla dogal na ni tey lañuy ñuy jeexal suñu festival muy cinquième édition bu ñu def euh, ci département de Mbacké ba tax na gan yëpp ñëw nan waaye coono gi tey ji wàññeeku na ndax nag lu tax bu fekkee da ngay woote gis nga ay nit ñoo xam ne ñëw nan fekk si la yaakaar naa ne coono gi day wàññeeku parce que loolu rek la ñuy wut ñun artiste voilà moo tax nag festival baa ngi nii di terminer tey jii nga xam ne mooy le 31 décembre nga xam ne sax tey ñii li ma fi may wax ak yéen ci le premier janvier di ñaanal bépp artiste boo xam ne defoon nga déplacement ñëw ci département de Mbacké la commune de Mbacké ñu lay ñaanal ñu dellu ci jàmm ak salaam fekk njaboot ci jàmm ak salaam ñu déggante waat ci jàmm ak salaam gisante waat ci jàmm ak salaam waaw euh, président ki nga xamante ni moo di président activité Bawol ñi ngi laaj ci festival bi déet parce que lii dafa dafa yomb région yëpp ñu ñëw yor jox leen ñu naan loolu ndax gars yi jàpp nañ ci bu baax baax waaw waaw autorité yi jàpp nañ ci autorité yi jàpp nañ ci xëy na mu bëri mu néew man ku ma xam-xam ne duma xarab doomu aadama parce que ki ma jox ki ma jox un million yéene na ma ki ma jox mille francs yéene na ma moo tax ma ne autorité yi jàpp nañ ci jàpp nañ ci ah kay dañuy ñaan ñu gën cee jàpp rek nañ ci gën a jàpp parce que lu mel nii li nga ko waxee ni sànq yombul te dëkk yëpp a ko am kon bu fekkee dem nañ ñun xeex ko ba di ko au niveau de que ñoom lañ ko defal autorité yi ndax bu nu génnee drapeau Mbàkke la génne kon nit ñi bu ñuy ñëw tey di fekk si waa Mbàkke c'est parce que bu nu génnee def nañ fa lu baax te nit ñi safoon nañ leen faalewoon nañ leen moo tax ñu ñëw Mbàkke léegi nag dëkk bi la jaay Mbàkke la jaay parce que culture bu doxee au niveau de ba ñëpp di ko waxtaane autorités ñoo ciy gagné parce que bépp autorité boo xam te am am naa ñoo xam ne ñu koy taxaw comme il le di ko yóbbu fépp foo xam ne baax a baax a baax sonn ci xale yi jàppale leen képp koo xamante ni nekk nga ci groupe bi nekk xale mi ngi lay taxaw la jàppale bu baax a baax yéen a ci seen nga xamante ni moo di 28 pro gars yi ñu ngi leen baax